dama dem ñu invité ma ca maro di introniser roi Hassan II ba mu dund ñetti mag ñi ànd ak man kenn ki di yàlla may na ko tey li mu gën a bañ ci àdduna te muy nguur mu ni bu ko Suleymaan ñaanee ñépp a ko yedd te wax na dëgg li ko yàllay fonk yépp ci chantier la ko bàyyi mu dee ca te daf daan ñaan dee ci biir néegam waaye moo ñaan nguur yàlla ku ñaan nguur mu fiir mu fiiri la moo tax mu bàyyi ko mu dem dee ca chantier ba ñépp janoog moom xam ni ndeke du buur yonent lu mat a bàyyi xel